ak ak yelleefu ak doomu aadama yooyu noonu ñuy wax noonu dañ koy dëkkee di jalgate vidéo bii ma leen tegal mu ngi xewee ci Argentine donc Argentine benn benn benn benn benn benn ville bu ñuy wax Lanús fa la vidéo bi xewee donc lu xew un bu nga xam ne euh, dafa génn doon jaay donc bi mu génnee di jaay donc policier yi ñëw jàpp ko tout simplement jàpp ko jàpp ko ci ka nga xam ne soo ko ne woon laalli li ngay jaay mu laalli li nga demal nga ñibbi mu dem ñibbi léegi ñu jël ko jatan ko jàpp ko tëral ci suuf takk manote jël oto teg dugal yóbbu léegi ma leen di laaj léegi ñun ñun sénégalais ñun wala ñun en ñun nit ko ñuul ñun ana suñu ay njiit ana suñu ay njiit ni ñu koy dundee nii actuellement ni ko ni ko ñii di dundee actuellement nii en Argentine noonu la ko moodu moodu bi nekk Italie di dundee noonu la ko moodu moodu bi nekk France di dundee noonu la ko moodu moodu bi nekk Allemagne di dundee noonu la ko moodu moodu bi nekk ba Australie noonu la koy dundee léegi ba kañ ba kañ léegi nit ñu ñuul ñi wala plus particulièrement sénégalais yi ñoom dañuy toog rek bëgg a wékkaat encore une fois ma dikkaat encore ci garaawul ci yàlla baax na foofu la ñuy bëgg encore wékkaat suñu bopp foofu la ñuy encore wékkaat suñu bopp ñu ñuy téye di ñu toroxal ci àdduna bi di ñu téye di ñu dóor ci àdduna bi di ñu jàpp di ñu tëj ci àdduna bi di ñu jàpp di ñu rey ci àdduna bi pendant ce temps ana suñu njiitu réew mu ngi Sénégal di signé ay contrat ay contrat yu nga xam ne ba suñuy sët sëtaat ñoom xam nga dañu dañu dañ koy fay pendant sa temps ana ñun ñu ñu jiite ñun suñu ay dirigeants ana ñu ñu ngi Sénégal di pasar pasare ak di ak di ak di yàq alalu réew mi ana suñu ay njiit ñun ana ñu ana ñan ñoo ñu jiite ñun ñan ñoo ñu jiite ñan. ay baadoo la ñoo ñu jiite ña nga xam ne ñoom li askan wi dund ñu ñoru leen ña xam ne ñoom li askan wi mettitu askan wi yéguñu ko seen yoon nekku si te pourtant jàmbaar yi nga gis nii ñuy téye di leen dóor di leen xoqatal di leen bunduxatal di leen rey ci àll bi xaalis bi ngeen di dundee yéen waa Sénégal ñoom ñoo koy yónnee xaalis bi ngeen di dundee yéen waa Sénégal lii la jàmbaar yi di daj pour di leen ko yónnee ngeen toog biir Sénégal di wooteel ay politiciens ya nga xam ne junni lañ leen jox ak ak ay piis pour ngeen wooteel leen pour ngeen votel leen ay politiciens ya nga xam ne ñu ngi biir Sénégal ñan ñoo leen fal yéen ñi nga xam ne yéen yéen a nekk ci biir kër yi yéen la ñuy jox ay tisi ngeen leen di fal pendant ce temps seen doom yi ñu ngi ci biti ñu ngi bitim réew ñu ngi ci àll bi ñu leen di rey comme ay weñ ñu téye seen doom yi di leen bundu xataal comme ay weñ di leen naqaral di leen mettital ci àdduna bi fu nekk ñu leen jàpp di leen tëj ñëpp xam nañ que ne actuellement période bi ñu toll ni période pandémie la période Covid 19 la nga téye ay nit nga tëj leen Argentine ñoom ñu ngi ci confinement 4 mois 4 mois ñu ngi ci 4 mois de confinement ñoom donc ku nekk ci 4 mois de confinement nga tëj ko ci ay kër pendant 4 mois joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan. lan la am mooy li mu war a dundee loolu la am mais du ngir du du du dem du dem ci biti liggéey yi parce que moom liggéey la xam moodu moodu yi ñoom liggéey lañu xam xamuñu sàccuñu jaayuñu dorog fenuñu liggéey mooy seen métier lan moo tax ngeen bëgg a bàyyi ci biti état Sénégal bëgg a bàyyi doomam yi ci biti ñu leen di rey comme ay weñ état Sénégal bëgg a bàyyi ci biti doomam yi ñu leen di tëj di leen bunduxataal di leen jàpp Euh, amuñu seen àq ak seen yelleef amuñu ko te pourtant boo demee chaque jour ñu ngi ñuy gëmloo la convention de Genève la convention de Genève la convention de Genève ñu naan lan ñu naan Nations Unies dañ naan ñu tous les hommes naissent libres égaux en dignité et en droit mais c'est totalement faux du dëgg mais loolu du dëgg loolu ci ay wax la yam ci ay wax la yam ana état Sénégal ñoom lan la ñuy jariñ sénégalais lan lan nga ñuy jariñ sénégalais bu fekkee sàcc alalu askan bi mën ngeen ko mais s'il s'agit de défendre vos compatriotes là munu leen ko ñaata sénégalais lañ fa rey ci diggante deux mille dix neuf deux mille vingt bii nii ana pendant ce temps ana Sénégal ana état Sénégal lan mooy seen liggéey ngeen toog ñu téye seen doom yi ci àll bi di leen tëj di leen rey di leen di leen kenn mayu leen sax nafsu gu ñu liggéeyee mayu ñu leen sax jàmm pour ñu mën a liggéey vous pensez que ne ça c'est sérieux c'est pas sérieux benn benn benn benn benn doomu aadama <coughs> gisul boppam ci yéen ni ngeen di doxalee réew mi taxawul lu leen sénégalais yi teewalu leen sénégalais yi fenn lu dul yéen sàcc alalu réew mi kese ngeen mën mënu leen défendre benn sénégalais mënu leen défendre àq ak yelleefu benn sénégalais lu dul lan bu dee sàcc alalu askan bi moom yéen yéen ci champion mais s'il sa de défendre le de défendre les Sénégalais là non yéen yéen ay ndaare mënu leen dara tous rien vous êtes des incompétents vous êtes des incompétents yéen mënu leen défendre askanu Sénégal mënu leen ko mënu leen défendre askanu Sénégal mais bu dee sàcc alalu Sénégal mën ngeen ko Sénégal yeewu leen yeewu leen xëppi leen seen bët yi tey xool dinañ leen dëkk di rey ci àll bi dinañ leen dëkk di jàpp di tëj ci àll bi am na ñi nga xam ne tey sénégale yi nga xam ne tey seeni njaboot gisatuñu leen te xamuñu si lu ñu nekk ñenn ñi rey nañ leen ñenn ñi ñu ngi ci kaso yi ñu tëj état Sénégal lan mooy seen métier tous directeur des sénégalais de l'extérieur lan mooy liggéeyam tous au contraire ils ne font que mentir les gens là rek la ñuy def fen rek la ñuy def fen kese la ñuy def directeur des sénégalais de l'extérieur lan mooy liggéeyam et pourtant xaalisu sénégalais yi lañ koy fayee. xaalisu senegale yi lañ leen di fayee ambassadeurs yi nekk fii lan mooy seen liggéey ambassade boo demee ci dëpp boo demee ci représentation diplomatique yu Sénégal yi lan mooy seen liggéey toog suba ngoon guddeeg bëccëg di fen jël askanu moomeelu askan bi jël koo consulat sénégalais yi def ko seen moomeelu bopp jël koo consulat askan wi def ko ay siège u APR il est temps ngeen liggéeyal sénégalais yi nga xam ne ñoo leen fal il est ngeen liggéeyal seen doom yi nga xam ne ñu leen jàpp di leen tëj ñu ngi leen jàpp di leen bunduxataal ñu ngi leen jàpp di leen rey ci àll bi lan mooy seen métier yéen lan ngeen di jariñ askanu Sénégal yéen politiciens yi yéen nguuru Sénégal yéen nguuru APR lan ngeen di jariñ waa Sénégal lan ngeen di jariñ sénégalais yi les sénégalais sont maltraités malmenés soo demee tey Liban gi nga xam ne ñun ñu ngi toog tey di leen naan naan ndeysaan di leen ndeysaanal Liban googu noonu ci boppam. mais des Sénégalais souffrent là-bas des Africains souffrent là-bas soo ñoom lañ jàpp daf leen ay jaam tëj leen ci biir di leen liggéeyloo di leen dóor tey seytaane boo gis tey mu ngi génn naan non ndeysaan nee na gis nga bàyyi leen naa fekk naa fekk baaxul bàyyi leen naa fekk naa fekk baaxul seen doom yi nekk ci àll bi ñu leen di di leen di leen di leen di leen bunduxatal lijjanti leen leen il faut ngeen lijjanti lee sénégalais la yi nga xam ne ñoo nekk à l'extérieur yéen bu ngeen dundee sénégalais ñoo leen jox ngeen dund su ngeen lekkee Sénégal ku fa lekk lekk bu neex moo du moo du moo la ko jox Sénégal ku fa dawal oto bu rafet Modou Modou moo la ko jox Sénégal ku fa sol yére bu rafet Modou Modou moo la ko jox Sénégal ku fa dëkk ci kër gu rafet moo du moo du moo la ko tabaxal ngeen topp politiciens yi ñu dëkk di leen nax di sacrifier seen doom yi ci àll bi dem leen ngeen xool statistiques yi li moo Modou Modou yu dugal ci biir Sénégal kenn dugalu ko amul kenn ku ko dugal mais lan moo tax ngeen toog di xool les politiciens la ñu dëkkee saax-saaxee askan bi topp toppatoo ñu seen doom yi ci àll bi ñu ngi leen téye di leen rey xool leen sénégalais yii nii nga xam ne dañu leen a tëj pendant confinement pendant quatre mois amuñu lu ñu lekk mais li leen état li leen état argentin bi di jox doyu leen mënu leen a dundal te du ñëpp ñoom ñoo ko am quelques-uns rek ñoom ñoo ci am mais lan moo tax ñi ah du ñu génn liggéey lan moo tax du ñu génn liggéey mais gor boo ko tëjee 4 mois ci këram gor boo ko tëjee 4 mois ci biir këram ah li muy dundee bu jeexee mu génn utu ko ci biti li muy dundee bu jeexee mu génn utu ko ci biti ñoom ay gor lañ parce que rus nañoo sàcc rus nañoo sàcc contrairement ak Modou ak ak ak politiciens yi nekk biir Sénégal xëyuñu gontuñu ñu yetuñu dëkkee sàcc alalu askan bi ñii au moins c'est des honnêtes gens des honnêtes citoyens ay doomu aadama yu digne yu am dignité bëgg a liggéey teral seen ay waajur moo leen génnee biir Sénégal ma leen di fàttali que ne bu fekkoon yéen ni ngeen waroon a doxalee alalu Sénégal doxalee ngeen ko noonu kon benn sénégalais du génn Sénégal di dem di moodu moodu ji bañ koy téye di ko toroxal ci biti. tey jii tey su fekkee tey sénégalais yi ñu ngi jël méditerranée bi di dee bu fekkee tey àdduna bi foo dem fekk fa sénégalais mu fay toog di souffrir sénégalais yi nekk biir France di tëdd ci ay mbedd di fa fanaan. c' est parce que état bu Sénégal ak dirigeants africain yi ñoo deful li ñu war a def ñoom ñoo deful li ñu war a def parce que su fekkoon def nañ li ñu war a def kon benn sénégalais kon du souffrir ñun bëriwuñu nous sommes juste quinze millions d' habitants quinze millions d' habitants lañ quinze millions bëriwuñu donc parmi les quinze millions d' habitants là bëriwuñu su fekkoon état Sénégal doxalee na ni mu war a doxalee suñu moomeel. kon tey jii nii benn sénégalais du génn di dem di sonn ci biti <coughs> gars yi maa ngi jégalu sama xol bi moo jeex rek vraiment sama xol bi moo jeex parce que euh, voilà quoi voilà quoi sama xol bi moo jeex vraiment sama xol bi moo jeex parce que man bugguma gis sénégalais buy bu bu bu ñuy toroxal waaw bugguma gis sénégalais bu nga xam ne dañ koy toroxal bugguma gis sénégalais bu nga xam ne dafay souffrir bugguma gis sénégalais bu nga xam ne dañ koy téye di ko bund xataal ndax lan parce que dafa bëgg liggéey dafa bëgg liggéey les sénégalais suufur sénégalais yi ñu ngi souffrir ñu ngi souffrir à l'extérieur <coughs> ñu ngi souffrir à l'extérieur te kenn tegu leen ko lu dul nguur gu bon africains yi ñu ngi souffrir à l'extérieur kenn tegu leen ko lu dul nguur gu bon quinze millions d'habitants ñu am or am diamant ñun am zircon am am pétrole bëriwuñu quinze millions d'habitants lañ bëriwuñu ñu xoolee ba ay deux cent personnes jël en notage réew mi ñi jël réew mi en otage matuñu mille personne ngeen di toog di xool seen doom yi ñu leen di rey ci biti di leen toroxal lépp ngeen bëgg ko teg ci yàlla baax na lu ñu leen wax ngeen ne yàlla baax na lépp ngeen bëgg ko teg ci garaawul lu ñu leen wax ngeen ne garaawul état senegal il est temps ñu wax leen dëgg il est leen dëgg bàyyi leen ah, alalu askan bi ngeen di sàcc di ko dundee te bañ dundal askan bi bàyyi leen di dundee askanu Sénégal te bañ dundal askanu senegal moodu moodu yi nekk ci biti étudiants yi nekk ci biti sénégalais yi nekk ci biti en grosso modo du ñu ay mbaam ay sénégalais lañ dangeen leen war a défendre parce que xaalis Sénégal lañ leen di fayee gars yi may leen ma mën naan te ñëw parce que vraiment <coughs> je disais euh, sénégalais yi ay doomu aadama lañ ñun ñëpp ay nit ñu ay nit lañ du ñu ay mbaam ay nit lañ su fekkee dañu dem ba nga xam ne. étudiants africains yi ñu ngi ci biti di souffrir moodu moodu yi ñu ngi ci biti di souffrir yéen ngeen dëkkee toog di wax yàlla baax na rek ngeen dëkkee di toog yàlla wa yàlla baax na rek dama ne état Sénégal ñu sénégalais yi seen bopp la ñuy liggéeyal état Sénégal ñu sénégalais yi seen bopp la ñuy liggéeyal je profite de l'occasion pour wax que <coughs> am na ay sénégalais yu nga xam ne ba nii nii may wax ak yéen nii ñu ngi Russie ñu ngi Russie foofu ñu tëj depuis janvier ba léegi depuis janvier ba léegi ñu ngi leen tëj Russie depuis janvier Sénégal jàpp fa benn libaane nga tëj ko nga xool Sénégal jàpp fa benn français nga tëj ko nga xool Sénégal jàpp fa benn jàpp fa benn américain nga tëj ko nga xool Sénégal jàpp fa benn français nga tëj ko nga et pour lan lan moo tax léegi ñun ñu war ñu di ñu téye ci àll bi di ñu jàpp di ñu tëj amuñu droit liggéey amuñu droit def dara lan moo tax pour lan. te ñu nekk ay doomu aadama comme ñoom dama ne mbéjum kanam borom a koy fajal boppam il est temps ñu jële fi les politiciens là le politiciens là il est temps ñu jële leen fi parce que warul doxee noonu warul doxee noonu état bu ne yow sa devoir la nga protéger sa ay doom état bu ne sa devoir la nga protéger sa ay doom ci côté ci bi ñu demee ci pandémie bi Covid 19 bi. lan la lan la américains yi def ñëw gaare delta biir Sénégal ne képp kuy américain duggal dangay dugg ñu yóbbu la nga ñibbi parce que ñoo ñu gëm nañ seen ay doom yeneen réew yi noonu lañu def état senegal bàyyi ay doomam ñuy dee ci biti ñu leen di rey pire léegi doom yooyu noonu ñu bàyyi woon ci biti ñu fexe ba débrouiller ba ñëwal seen bopp ñu ne léegi pour ñu mën a delluwaat il faut ñu fay leen test Covid 19 40 mille francs déjà arnaque boobu noonu fan xam nga Sénégal dañuy dëkk chaque jour di gis li leen rey ñu continuer di ko gëm bàyyi leen politiciens yi bàyyi leen politiciens yi loolu rek laa amoon ci lu may wax donc live bi moom foofu laa koy daggee koi parce que vraiment sama xool fees na parce que xam nga ni ñuy maltraité sénégalais yi à l'étranger du yoon nit ki même bu nekkee sa dëkk sax même bu amul kayit sax dafa am droit dund fa si jàmm dafa am droit dund fa si jàmm dafa am droit nga protégé ko lan moo tax ngeen di xool ñuy rey sénégalais yi ci biti lan moo ngeen di xool ñuy téye sénégalais yi di leen bunduxataal ci biti pour lan ma ne il est temps ngeen bàyyi politiciens yi politiciens yi c'est des ay fenkat lañ ay fenkat lañ liggéeyaluñ sénégalais yi seen bopp la ñuy liggéeyal détourné alalu askan bi lañ fi nekkee le directeur des sénégalais de l'extérieur anamu lan mooy liggéey lan mooy liggéeyam lan mooy liggéeyam fii waa Argentine ñoom seen bopp amuñu consulat biir Argentine te ñaata sénégalais ñoo fay yeewoo am na fi ña xam ne seen passeport yi dafa jeex depuis kenn kenn xamul kañ la seen passeport yi jeex seen ambassade yi xawma ambassade Brésil bi nekk bi nekk Amérique du Sud moom moo géré Argentine lan lañ leen liggéeyal tous seen association bi fi nekk lan lañ leen liggéeyal tous nekkuñ fi lu dul fenn rek lañ fi nekkee ñu kenn lu liggéeyaluñu sax sénégalais yi. am na benn benn ay gars ya nga xam ne ñoom ñoo volontaire ñu leen di wax acte acte lañ leen di wooye acte acte des sénégalais de l'Argentine ñooñu ñooy góorgóorlu pour di gérer sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk ñooñu rek ñooy góorgóorlu pour di gérer sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk mais association bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkal sénégalais yi fen rek la ñuy def liggéeyaluñ sénégalais yi au contraire xel waa APR lañ yor dañuy dundee sénégalais yi mais dundaluñu sénégalais yi ma ne yeewu leen yeewu leen gis nga. politique bu bon bi Sénégal la jógee ñëw ba à l'extérieur parce que ces même gens là ñi nga xam ne ñoo réew mi comprendre ñi nga xam ne ñoo gérer Sénégal ay politiciens lañ askan bi taxu leen a jóg seen bopp moo leen tax a jóg il faut ngeen xam loolu noonu seen bopp moo leen tax a jóg xam leen loolu pour muy leer voilà donc gars yi live bi loolu la woon donc c'était un cri de cœur ma am lu ma yi ma dugg wax ko xam nga d'habitude man duma live heure yi mais il fallait que mboq parce que am naa lu ma metti waaw en tout cas encore une fois ñu ngi leen sant di leen gërëm ci déglu beeg teewlu bi te di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm comprendre defal leen tawféex yi ci nekk foo mën di nekk yàlla na la yàlla suñu borom sàmm waaw ku ci nekk foo mën di nekk rek yàlla na la yàlla suñu borom sàmm voilà donc loolu la ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax jërëjëf merci beaucoup